Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf doon laam-laamee sikki sa kaamatu ci ñaari samba yi song agence Wafa Cash ba ca Nord Foire journal Les Échos ne nañu ñoom ñaar ñëpp ay militaire la ñu colonel Abdou njiital DIRPA di banqaas gi gàllo jokko gi ci biir l'armée bi moo ko xamle kenn ki ci l'armée de l'air nekk fital yi ñuy tiitalee rabu àll yi moom la yoroon moom la songe woon agence Wafa Cash ba 977 245 fa jël ba ñu ko jëlee di daw askan wi defum diiraan topp leen di leen dàq ci militaire yi demoon doon sàcc xaalis ca Wafa cash ba ca Nord Foire kenn ki Lamine Sagna la tudd soldat classe 2009 3 mi ngi bokk ci armée de l'air tey jii ca la ñu leen di defere parquet waa DIRPA wax nañu ne kenn ki mu di Lamine Sagna ñoo ngi woon ak moom ci procédure de radiation ci tànki dàq ko ci l'armée bi ca la nekkoon ak moom def keroog ca Nord Foire du guléet mu koy def defoon na ko bu yàggul ca poste douane ba ca Pàkk nekk ca Sigicoor dafa demoon doon sàcc ñu jàpp ko càcc geneen gu feeñ libération nee nañu mooy 325 millions de dollars gi Yaya Jammeh sàcc waa Casamance yéenekaay bi nañu ci diggante 2010 jàpp 2016 Babili Mensa da doon gor àllu Casamance bi te dagg bant boobee ñu naan bois de vin di ko yóbbu réewum Siin di ko fa ci waa MFDC yi ñoo ko ci doon jàppale la tribune nañu na mu def am réewum di Gambie moo gën a bon ndax ci ñaar fukki at ak ñaar yi mu jiite réewum Gambie Yaya Jammeh jalgati na fa tollu ci juróomi téeméeri milliards milliards la Yaya Jammeh détourné ca Gambie ay enquête ñoo ko feeñal les éco nañu Jammeh saax-saaxee na koom-koomu Gambie ba caxat-caxatee àllub Casamance bi te nee nañu bi muy gor àllub Casamance bi di jël bois bi di yóbbu bitim réew les économies am na sax ñu ne ci trafic de bois boobee waa MFDC encaissé nañu ci vingt millions de dollars doomu aadama ñoo fas yéene défilé avril soleil national moo ko bind dem ci sax ba gën ci sori di ko benn benn lal di ñu wax défilé avril beeg ni mu nar a ak li ñu ciy bokk na ci mille yu fa nar défilé juróom-ñaari aéronef trois cent ak téeméeri fas yu manqué juróom-ñeent lu mat fanweeri école ak juróom war nañoo bokk ci défilé ba réew ñu ne 1815 civil ak 4035 militaires ñoo fas yéene défilé ci feetuk indépendance gi ki ko war teewee di président Macky mi ngi ci xët mu njëkk sursuwa yéen a kaay bi nañu ci jamono jamuy nekk ci réew doon fa noppalu ji dafa tànnoon juróom fukki nit ak ñaar jël seeni tur jox ko directeur police nationale nekkoon na ko defal ci ñoom enquête de moralité waa direction surveillance du territoire ñoo def enquête ba ba mu sotti ñu jox ko résultat journal bi nañu am na ay nit yoo xam ne def nañu ci ñoom enquête de moralité keroog ca ndajam conseil des ministres bi mujj ña fa woon toog source a nañu président Macky Sall tànn na ay nitam nit si ñamu doon liggéeyal ci cabinetam la Sénégal ñoom tey ji ca ngoon ca palais de la ñoom it ñu war a toog xaar seenu ëllëg ëllëgu Xalifa Ababacar Sall ci wàllu politique moom la ñuy ci Vox Populi yéenekaay bi mi ngi laaj ndax aveniru Xalifa Sall nekkul di lang jële nañu maire bu Ndakaaru ci ay loxom mi ngi am lante ak yoon bañ na ne du dellu ca parti socialiste ñi àndoon ak moom ñenn ñi ñu koy tàmbale woon ginnaaw laaj bi di léegi fu Xalifa Sall jëm ñu dem ci Léopold Sédar Senghor ak stade Lat bu Thiès yéenekaay bi nee nañu pelouse yu bon ya fa nekk dara waralu ko lu dul liggéey yu bon ya fa entrepreneur bii di Mbaye Faye akub entreprise am def stade Lat bu Thiès 2015 dañu dañu koy réhabilité def fa gazon naturel premier ministre moo lancé woon travaux ñu jël liggéey ba jox ko Mbaye Faye waaye dara baaxu fa keroog bu fa Sénégal di football ak Madagascar ci la lépp feeñee ba Sadio Mané génnoon